que moom gis na yàlla jël turam ak turu sallallahu alayhi lënkale ko mu ne yow yàlla fadaltu alayya yow dag maa gënale ci yonent bi fadaltu alayya yow dag ma gënale ci yonent bi mhm. léegi bi mu demee ci béréb yii ma la wax nii gis na fa ñu jël drapeau boo xam ne yàlla turam moo ci nekk ak sallallahu alayhi mu ne ko bëggoon naa nga defal ma lii yàlla ne ko non lii yonent bi lañ ko jagleel mu ngi mel ni nga ñëw ci hôtel fekk espace réservé nga bëgg ci teg loxo. suite présidentielle def fa xam nga loolu mënul nekk. mu ñëwaat ne ko gis naa téereem bi dañ koy jàng di ko mokkal ndax dooma defal loolu parce que Moussa defe naa tooraa lañ ko jox. Ah, yàlla ne ko loolu yonent bi laa ko jagleel. mu dellu waxaat ko ne ko moom de gis naa xeetam fu leen neex la ñuy julli te ñun dañu am jàkka baytul maqdis ak ban mooy jàkka euh, nasaraan yi ak ban sax waaye hmm. ñaari jàkka la dama fàttali mu ne ko ñun bu dul loolu duñu nangu suñu julli mhm. ak waaw mu ne ko loolu yonent bi laa ko jagleel mu dellu waxaat ko ne ko man gis naa ni yow da nga koo defal xeetam bu ñu juumee dañ leen di néggandiku te loolu xadis la yonent bi moo ko wax dañ leen di néggandiku bu ñu defee astaxfirullah nga baal leen yàlla doo ma defal loolu yàlla ne ko Moussa mënuma la defal loolu yonent bi laa ko defal bëri na léegi nag Moussa ne ko finalement est-ce que doo jël prophétie bi nga ma jox. macha allah def ma ma bokk bokk ci xeetam. yàlla ne ko loolu yonent bi laa ko jagleel après yàlla nag daal di jëfandikoo impératif ci kawam parce que Moussa nekk loolu kuy reculer mm-hmm. am fit am sañ-sañ du reculer lu ko neex lay laaj yàlla yàlla ne ko fa xuz ma aataytuka wa kun mina shakirin musaa jëlal li ma la jox te nga bokk ci ñuy sant maanaam bu nekkoon maa ngi yow nii ñuy waxtaan kon finalement da nga naan Pape Moussa dafa maa mere mm. jëlal li ma la jox te nga may ma sama jàmm te boobu yonent bi ñëwagul sallallahu alayhi pour wax la njool màkka dimension bi mu toll mais c'est domage que euh, nit ñi parfois dañ koy wuyoo te ñu xam dëgg-dëgg dimension sëriñ bi yonent bi beneen affaire la yonent bi affaire la nit mënta àgg ci suñu borom te en fait doo jaar ci te doo jaar ci moom déedéet te ku la gën a yëkkatiku mooy ki la gën a bëgg yonent bi ah. mooy ki la ko gën a yor euh, mm-hmm. roy moo tax sayxul ad xadim daf ko ne dann ak saxaaba yi El Hadj Ibrahima Dias nahnu kazalika wallaahi El Hadj Malick maa ngi liir semaine bii mhm. xilaas buntu neuf mhm. muy wax lim yi jibril wàcc ci yonente bi vingt quatre mille bu dee Moussa quatre cent fois et cetera et cetera mhm. donc ñooñu daal moo tax ñun ñu tax moo tax ñun ñu nekk autrement dit maanaam bokk ci xeetu yonent bi bu dee jaral na yonent yàlla Muusaa ñu dégradé ko moo lay wax ni bokk ci xeetu yonent bi loolu c'est autre waaw dégg naa nag fan yee Omar Diagne génn di wax bay tudd wàllu yeesal bindu ku mel ni Seyxul Xadiim mag ku mel ni bindu Maodo suñu mag ñi mais loolu mm-hmm. mu xàll loolu mënta nekk amul lu sëriñ bi mag ñi ñu doy waar lañ pour nga xam seen bind kese yàlla da lay dimbali kooku nag noo koy tiimee ba naan da ngay indi ay yeesal ak mën nañ koo beesalaat. non non non il n'a pas parlé dans ce sens seulement euh, bu ñu d'accord ne seul l'œuvre de Dieu est parfaite. n'est-ce pas mm. nangu nañ loolu ñun ñëpp. Mm. kon œuvre bu nekk am na imperfection. Mm-hmm. nangu nañ loolu yëpp. lépp mm-hmm. lu am imperfection mën nañ ko perfectionné. Euh, xam nga lu tax man du ma d' accord foofu Pape Moussa. non mais est ce que li ma wax yëpp nangu nga ko nangu. nga lu tax man du ma ci mm-hmm. ne am na lu koy yëngal. waaw lan wax lu dëgg. mais Sayxul Xadim nee na man su may bind Aras dafay jaayu malaaka yi dañuy sàbbaal. waaw. non en fait il n'a pas dit que ni li du noonu. non man la li di dama ne waxul foofu de. dama ne man par exemple. maanaam gis nga yow lan moo tax léeg-léeg bu la yàlla dimbalee nga tiim yenn bindu mag ñi di am loo yëg loolu nekkatul maanaam lu temporel kese. nee naa la semaine bii xelaas laa doon réviser surtout buntu neuf mais da koy liir di yëg loo xamante ni da ngay xam ne lii nekkul est-ce du am ay débat doctrinal ñoom ci seen biir. dinañ am non mais même bu amee débat euh, doctrinal. maanaam ñoom ña leen jiitu. la leen yàlla defal lañ leen ko nangul. waa maanaam sëriñ bi wax lii. Hmm. kii ne d'accord uma ci lii. Hmm. ku nekk andi say argument loolu am na wala amul. comme non da nga may jox benn exemple ma ma ma xam. laylatul xadr man ñi yëpp bokkuñ ci position. non hmm. xam nga lu tax duñ ci bokk position. waaw yonent bi ci boppam joxewul date exacte. très bien donc kon. en fait ku gis naa téere boo xamante ne léegi xam kese lay jàpp ku nekk day wax. am na téere bu ñuy wax laylatul xadri kese lay jàngale. waaw téere bi xadis yi ñu indi yëpp. non xaaral ma expliqué la rek xadis yi ñu indi yëpp. Mhm. amu ci benn bu yaxal ne laylatul xadri tel jour la. waaw léegi ku nekk mhm. dañ ne dàqaleel ko ci fukk fan yi. léegi ku nekk indi say argument. xaaral xaaral ma ñëw ay position. non dugg nga fu ma xam. no waxuma waxuma man waxu je ne parle pas du contenu dama la bëgg a wax rek ne la. Mhm. professeur Cheikh Oumar Diagne waxul ne diw mi nañ bind baaxul. non dafa ne diw mën nañ ko améliorer mais xanaa du lépp lu imper imparfait. non defal nañ ko améliorer à dire gis nga dañuy d'accord ci lenn man xam bu dee nangu nga ne seen œuvre de jeu est parfait hmm. bu dee loolu nangu ko hmm. kon donc beneen œuvre bu mu mënti doon. xam nga li nga wax principe de départ la. Mhm. xam nga li nga li nga wax ni principe de départ. mais ñoom mais yonent wul wala pointé wul kenn ne. am sax nañu dem xoolaat bi yonent bi ci boppam. moo waxal boppam ne al ulamaa warasatul anbiya. mais teru teru saaba yi ñoom bu bu yonent bu yonent bi andee benn kii dañ naan ko yàllaa ko wax wala yow yaa ko wax. bu dee yow yaa ko wax nga wax de xam nga lan la saaba yi wax ci yonent bi. waaw ah. non li ma déglu ma rek. li ma wax nii am na wala amul maanaam bu dee sa wax la nañ ko discuter dégg déggul ma expliqué la. Ah. maanaam yonent bi dafa wax ci saxaaba yi lu doy waar. yëpp yow la. lu doy waar la ci wax xam nga déjà yonent bi dafa lim ay saxaaba ñu nekk fukk mu ne leen da di dem àjjana. Mhm. waxalu ko kenn mu dellu waxaat ci xadis ne maanaam jëfi sax jëfi saxaaba yi. Mhm. boo nekkee ku baax ba am élévation ñépp nangul la ko. sa jëf yow sa jëf du tollu tollu leen sax ci ténq par rapport ak montagne Uhud defe naa noonu la ko waxee ci xadis sëñ bi dafay am loo xam ne dañ ciy d'accord maanaam yonent yi saxaaba yi ñi baax ci alxuraan ak sunna ba def ay preuve man jàpp naa ne bu ñu leen tatagalul c'est malsain non attends rek. non man comprendre loolu li may wax li nga wax nii ak li may wax bokkul. Euh, Pape Moussa dama ne mm. Pape Moussa ndax euh, saxaaba yi. Mm. Euh, bu mbir ñëwee yonent ñu ne yonent bi ndax waxu yàlla la. bu dee loolu la c'est indiscutable. mais dama ne. ndax sa wax la on discute. non cest saxaaba yi rang bi ñu bokk. bokkuñu bokkuñu rang boobu waxuma waxu rang boobu bokkuñu sax rang boobu je ne parle pas rang wu saaba yi dama ne xam nga parce que su ma la bàyyee nga dem bi lañ mën a discuter laa la su ma la bàyyee nga dem da ngay def rapprochement non yow yaa juum parce que waxuma waaw léegi xaar leen xaar leen waxu yonent bi ñuy euh, discuter euh, s'il vous plaît s'il vous plaît yéen ñaar ñëpp tey mais mais mais mais non bokku ci sujet s'il vous plaît non non non non non non mosoo leen gis émission buy dem 9h ba 13h dimbali leen ñu rek ngir yàlla dañuy waxtaan mais émission bi jeex na émission bi émission bi jeex na débat la science la. mais alxuraan ci boppam moo saxal la yonent bi di waxee bànneexu bakkanam. nangu nañ ko maa zaaxal jàngale la ñu ne ñu ne ko bu dee yaa ko loolu jàngale la pédagogie la. d'accord dama bu ñu nangoo ne xam xam nga Aboubacar xam nga bu ñu ne ko xam nga post yonent bi diw intellectuel ba béy Pa Moussa Pa Moussa Serigne Mansour Pa Moussa diw intellectuel man ngeen di dimbali diw intellectuel la loolu point d'arrivée la mais am na ñoo xam ne dañoo waas dañoo weesu dañoo dépassé maanaam l'aspect intellectuel d'accord d'accord accord ouais, ouais. est-ce que d'accord non non non aidez-moi s'il vous plaît Papa Moussa non Papa Moussa non non non Moussa non non loolu d'accord kenn d'accord kenn d'accord c'est pas un débat politique loolu erreur la bu doy waar mais kaay ma wax la xamante ne saa yi dañuy marché voilà léegi nag kaay ma wax la léegi ñun dañoo am responsabilité s'il vous plaît sëñ Mansour sëñ Mansour Papa Moussa aidez-moi s'il vous plaît ñun dañoo am responsabilité bu toll nii am na fu débat di yéeg foo xamante ne mën na laal gëm-gëm wala pas non man ba léegi defam ko ma loolu non non non non je suis d'accord je suis d'accord avec vous xoolal yéen ñaar ñëpp may leen ma rek ngir yàlla si dama leen ko ñaan da ngeen di wax ma leen di déglu déglu leen ma au moins euh. Euh, dafa am fuy mm, débat di toll ci réew ñun ñoo hmm. yor uppukaay euh, bi xam waaye ñu nit ñoo yor ndox bi ci suuy muy fay en tant que responsable hmm. man maa maa décidé ni dañuy dañuy dañuy débat bi dañ koy waxee ci yeneen tribune mais sur le plateau nañu fexe rek euh, coow li jeex waxtaan mën na am ci ñaari diggante yi ba ba ba ba peut-être ñi comprendrewul mën a comprendre parce que wax dafa jafe ci rawatina réew bu mel ni Sénégal te pas-pas dafa sensible religion ak yenn ak yenn yu ci mel ni këri diine yi nañu nañu moytu di ci dugal suñu loxo bu baax a baax parce que. dafa c'est non non non y a pas de mais y a pas de mais qui tient non non non non non non bu dee xam-xam euh, Pa Moussa Pa Moussa jërëjëf Pa Moussa euh, Fari adama incha allah Moussa ñooñu du lay tere jërëjëf Moussa Moussa adama incha allah Pam euh, sëñ Mansour sëñ Mansour dimbale ñu sëñ Mansour dimbale d'accord nañ d'accord naa de Pa Moussa Moussa dimbali ma rek dimbali ma yow sama xarit nga yow sama xarit nga sarax ma rek euh, jërëjëf ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax euh, joxel numéro Cheikh Mbengue balaa ngay dem <laughs> bu baax internet yaa ngi ma topp sànq ba léegi joxel numéro Cheikh Mbengue 77 802 97 moom mooy numéro l'international 802 97. d' accord Cheikh l' international. sëñ Mansour jaajëfal nañu. ah yéen na ñëwal sama sëriñ bi nag. yow yow ana ana na ñëwal sama sëriñ bi sama xarit bi. da nga ma diggoon yére. man dinaa la ñëwal. barke l'islam wax yow sama xarit la yow nag kaay ma wax la àdduna bu defoon nii. du bu defoon nii. nekkee sama nit yow.